alors Oustaz kii nag ah. moom mu ngi lay mu ne moom daf doon julli gee alors bi mu tombee ci li nga xamante ne moom mooy ñaareelu ràkk bi mu fàtte ne. Hmm. mu fàttaliku ne julli euh, récité wul li nga xamante ne moom mooy Faatiha mu ne nan la mën a def pour rectifier julli bi Oustaz. mu ne lu mu fàtte dafa julli. dafa julli. waaw deuxième ràkk bi. mu fàttaliku ne tariwul Faatiha ci première ràkk bi. te obligatoirement ràkk bu ne moom. julli gee. Faatiha moo koy moo koy commencé. jërëjëf euh, soxna Kia. Pape kii dafa laaj daf ni. Mhm. daf ah, doon gée la doon julli daf doon julli gée. incha allah bu mu demee ba ci deuxième rakka bi. Mhm. mu fàtte ni rakk bu njëkk bi jàngu ci woon Fatiha. kooku ni muy def mooy ci tàng tàng bi. Mhm. su yëgee ni jàngul woon Fatiha ci rakka bu njëkk bi. dafay sànni rakka boobu dootu ko compter. maanaam erreur la. loolu day bo day bokkul ak ay baax daag. xam la non non farata la. Ah. da koo bàyyi ci rakk bu njëkk bi. day sànni rakk boobu dootu ko boole ci julli gi. Hmm. léegi deuxième rakk amoom bi mu nekk mooy première am comprendre dafa dafa def benn rakka. day julli gee. bi mu tollee ci deuxième rakka bi la fàtte faatiya non ci deuxième rakka bi la fàttaliku ni moom jàngul woon Fatiha ci première ba. waaw léegi bu ko fàttalikoo. Hmm. rakka bu njëkk ba da koy sànni dootu ko compter bokkatul ci julli gi comme amul fatiha. ah day mel ni ko recommencer à zéro. kay deuxième boobu mooy lay compter comme un. léegi nag deuxième bii. Uh-huh. mooy doon première am. te du ko li xaamaat ak. non non day continuer. xam nga julli woon na benn rakka. Mm-hmm, mm-hmm. mais rakka bu njëkk bi amul woon fatiha. Mm-hmm. léegi nag da koy sànni. na def ci xelam ne sànni na rakka boobu. mu ngi doog a tàmbali julli gi. mais sax pourtant yàlla dafa yombalal lépp. <laughs> diine méttiwul en fait. méttiwul. allahu akbar diine ju jàppandal lañ am léegi nag bu jàppee ni raka boobu alaaji pap bi nekkoon deuxième bu yàquwul bu julli gi yàquwul woon mhm. boobu ci normalement mooy doon deuxième bi ah. mais comme première bi yàqu na bii première la koy compter d'accord léegi nag bu jullee nag bay waaj a sëlmal ba taaya ba pare mhm. dafay sujjóot foofu sujjóot bi ñu tuddee xabla salaam waaw tax ma ne la du ay xabla ak baax da bi may dégg yow nga fenatal sama wax ji xeeb sama xam-xam yaa ngi bax de ñëw na defena xam xam laa ñëw <laughs> dama la ko laaj laaju fenêtre désintéressement intéressé mais itam da nga da nga da nga da nga fil sama sama sama sama sama xam-xam. léegi nak mhm. fofu lay sujud, mhm. ñaari sujud, avant muy selmal mhm. ñaari sujjóot yooyu ñoo tudd salam ah lolu moy réparer julli gi mo koy defar. obligatoire. alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yéen waa alfiqhul maliki wa adillatuhu maa ngi leen di nuyu ziar baax xam naa fatwa bi oustaz Modou Fall doon tontu bëgg naa borom xam ne ci biir daara ji ngeen diglu ko ngeen andi ñu ci ay leeral ba xam nii mu ko tontoo noonu la wala noonu ci kuy sukkandiku ci ngirum Malick waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah ku baax ñu ngi baax di ziar waa groupe bi waaw fatwa bi moom. xam naa boroom dafa dafa juum ndax ni boroom laaj ni laaj bi dikkee ak dolli rek moo am ci julli gi ak dolli mooy ràkk boobu nga xamante ni dañ koo ilxaa waaw ginnaaw ñaari ràkk mooy première troisième ràkk ba kon fasoogul mën na caa jàng faatiha ku saar mooy am ñaareel mu toog taaya continué nag àggale ñaar rakka des fatikam bu ko defee juróomi rakk lay am muy rakk bi nee na ak ñeent rakk yi nga xamante ni moom la julli su jot baax la salaam wala ahlam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax sëñ ngi baax a baax euh, xam na laaj bi daal la ca rot ci masala mooy ci ñu mën koo tontu ñu أراب ko ci arab جلي فإذا نسي بفاتي أن يقرأ مجان الفاتحة في ركعة تبركة وجب ورنا عليه كموم من هم دا جان الفاتحة أن يرجع مدل إليها كموم أي إلى القيام كتهوبة ليقرأها عن المجان ما لم يصل لنك إلى القيام ما نم فوق في في ما نم تهول ما لم يصل إلى القيام أقول كتهوبة min rakkaati taaliya ca rakk bay bay ba boobu nga xam ne moo topp ci rakka boobu topp ci rakka boobu fa in wasala nag il xiyaam bu fekkee nag daa àgg na ba taxaw nag moom min rakkaati taaliya saaniya wala saaniya bu ñaareel ba xaamat day taxaw rek rakkaatu saaniya maqaama rakkaatu ula mooy li nga wax sa maanaam rakk rakk rakk dafa wax ni malam yasalli ila xiyam yu ñu agsiwul ci taxaw min raka ci saniya rakam ñaareel ba fa in wasala ila xiyam nee na bu fekkee nag agsi nag ci maanaam jóg ci rakam ba ca topp nee na xaamat day taxaw raka saniya maqaama rakatul ula maanaam rakam ñaareel boobu day taxaw maanaam maqaama rak wa saara ka annahu day day mujj ka annahu fi rakatul ula day mel ni ba nga ca première rakam loolu daal dañu wax la asa fa isa na ci bu fekkee fàtte na an yaqara mu jàng alfatiha fi rakxati ci bu rakk wajaba war naa lii ci mu an yarjiha mu dellu ila ay ila alqiyam taxawaat li yaqara ngir mu jàng maalam yasalli feeg àggul ila alqiyam min rakati saniya wala taaliya rek bay ñëw fa in wasala ila alqiyam nee na bu àggee ci taxaw na nag min rakati saniya ndàkkam ñaareel ba xaamat day taxaw a rakatu saniya maqaama taxawaayam rakaatul ula maanaam rakk bu njëkk ba wasaaram day mujj ka annahu fi rakaatil ula baax na jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm tey jégalu ko. seen aw daal jaar ba yaa am jàmm fii nag ma fi gis na gis ma ne mu defaal dafa de ci dama gis nag xëy na man maa juum nag ma dafa mu defaal euh, masala ñax dari ba la indi mooy la muy fuuta goo gars yi wax ndax mu defaal dafa tënk rek dafa tënk dafa tënk daal maam ah, leeral gi ma waroon leer da ko tënk waaw ah, ndax foofu sama jum laax daal di wax naan bu fekkee ne maa nikki ki mi ko ne ci ñaaru laakaam ginnaaw bi bi ñetteel bi façon ginnaaw bi ñetteel bi façon ju julli gee ginnaaw bi ñetteel bi façon la fàttali ko moom premier raakaam ah, premier raakaam amoon amoon na jafe-jafe fàtt wàcc fa fàtt fa aw suba dem naa ko deuxième ngay ngay def première ña bi nga nekk nga def ko ñaareel dégg nga su ko def nga daal nga daal indiwaat nga def ko ñaareel kon su baa ko bu ñoo day toog su baa bu ñoo day toog su ko defee day indiwaat yeneen ñaar rakka waaw ñaar rakka yooyu bu ko defee nag bu ñu sujjee xam la salaam ndax fii def man dafay boole yokk ak waaj léegi beneen beneen bi nag mooy bi nga xam ne dafa jàng dafa ñëw ci ñetteelu rakka bi ra ñett rakka bi jottu fasu jottu ta ñetteetaaka ak jot a fas bi mu koy fàttaliku ni ci ñata rakal jot rakal raka jot a fas bi mu taxawee rek la ko ne sama premier raka amana jafé jafé baax dem ta faté aw sa bu nan faté fatiha ya. waaw dafa bay fatiha ja ci gàttal eh, ko day jël ñaara yoon bi def ko premier ñetteel bi yëngu taw mu def ko deuxième comme fa wa da fay jang faté ak sa ah su ñëwee da da di tok suñ ab bu bu bu dëgg bu ñëwee daal toog taay indiwaay yeneen ñaar rakka yoo xam ne dafay sujja baax de salaam ndax foofu yaa la ñu wax naa li ana suurata wa jula sa lam yafuuta ndax foofu bi mu taxawee saaro perte ko ndax jàng na Faatiha jàng saaro eh, indi indiwaat indi toogaay bi bee nag dafa dafa dafa dafa dafaa ñàkk saaro bële dafaa ñàkk saaro boobu mu def deuxième foofu umu saar même bu amee Faatiha umu saar foofoo tax mu sujjatee xawle salaam waa fi baax salaam ndax fii boo xool ak yokk rek a fi am waaye bu dee laaj bi nii maanaam Oustaz Modou Fall boo dégloo ni mu ni mu ni mu tontoo da nga xam ne liñ ko laaj sax xam na ko de xëy dafa dafa yàkkamti rek ñaari ñaar nit léeg boo ko laajee lu mu xam ne daanaka day bëgg nga gaaw daaneel rek du du settantal mooy waral mu tontoo noonu ndax boo xoolee ni mu jël njëlbeenoo wax di nga xam ne liñ ko laaj xam na ko ndax moom daa mel dafa wax ne comme que waa ji dafa taxaw ci rakkaat ñaareel bi kon léegi rakkaat bu njëkk moom moo yàqu comme que jullit gee te comme que teel naa xam ne rakka bu njëkk moo yàq rakka bu ñaareel bi moom lay def muy rakka bu njëkk lim na nag bu noppee de sujjóot xabla salaam foofu la juume rek ndax baxda salaam la sujjóot waaye yaakaar naa eh, ñàkkut a xam ne ku dolli yow yaa sujjóot baxda yow yaa sujjóot xabla loolu moom yaakaar naa ñàkk koo xam ndax léeg-léeg nga gis ko mu dugg ci masala yoo xam ne gën naa xóot gën naa xóot loolu. salaamaaleykum wa rahmatullah alfiqul malikiya ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare bu baax a baax Seydina Ousmane ñu ngi lay siyaare bu baax a baax mbaa yaa ngi si jàmm man ni Seydina Ousmane bala maa ñëw ci ki nga xam ni moom la ñuy laaj sax waaye plateau bi nga xam ne fii la toog nii di tontu de maanaam ñi koy laaj respecté wuñ ko dañ koy fowantoo ak di ko kekkantoo quoi maanaam am na si yoo xamante nii boo amee nit ki oustaz dëgg-dëgg te am ci moom respect quoi am na saar yoo xam ne ni mel na kuy kokkale ak di ñaawlante man moom loolu moom a gën a naqari sax ni mu koy laajee ak wëlbatiku di ko jërëxal nii di ko fowantoo daal respect ba si war daal joxu ko ko waaye nag bon Sénégal nag moom mi ngi nii rek xaw ma nag ko man nag li nga xam masala mi nag moom yéen lañ koy bàyyee Seydina Ousmane yéen borom xam-xam yi lañ koy baale ki nga xam ne dafa boole wàññi ak yokk ci benn rakka boobaa moom xam la lay xam la lay wala baax da foofu moom dañ koy bàyyee yéen borom xam-xam yi ngeen indil ñu ci ay leeral ba xam ci masab maliki ya la tontu wala anasi wala anbali la wop mom bàyyee nañ ko borom xam-xam yi dal bu fekkee tontu li am nañ jëm tey ñun mom ay taalibe leen rek ñoo ngi teewlu di diglu waye man dal am fait lima ci gëna déplorer quoi ci ki bi moy manque de respect bi nga xam koy manque de respect oustaz yi ak yenn imam yi dal loolu mom wax dëgg fa yalla na ma lool bu dee fatima mom ci masab malik ndax farata wala du farata loolu boo dem na ba ñeenti wax dem na ba ba ñeenti wax waaye ñaari wax yi ma ci indi mooy ñaari wax yi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a dëgër ñaari wax yi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a dëgër xam ne yeneen ñaari waay ci desoon daanaka ay wax la yu doy de dafa am ñu wax ne fatiha farata la ci julli gi waaye ci rakka bu ne la doon farata loolu nag moo gën a siiw rakka bu ne la doon farata am na beneen wax bu jàkkaaroo mu wax bu dëgër it boo xam ne moom dane fatiha farata la waaye nekkul ne rakka bu ne fatiha farata la farata la ci li ëpp ci julli gi rek bu dee julli ñeenti rakka la nga ne ñett ya farata la ca bu dee julli euh, ñetti rakka nga ne ñaaree ya farata la farata la ca boo xoolee da nga gis ne kon ak wuute am ci ndax farata la ci rakka yëpp wala du farata ci rakka yëpp am na ñeneen ñoo xam ne ñaan sunna ñi naan man du ko sopp waaye yaar wax yooyu moom daa mel ni ci masab Maalik dëgëru dara dara yeneen masab bi nag xawma si dara moo tax ñoom bu ñuy wax dañuy wax ne fatiha ku ko bàyyi man ngaa sujjóot xabla salaam ngir topp ñu ne fatiha du ci rakaa yëpp ba noppee nag nga baamtuwaat sa julli ngir topp ñu ne fatiha farata la ci rakaa yëpp moo tax ku bàyyi fatiha wala nga bàyyi ci ab aaya bu la neexee yi ñu wax yëpp nga bañ koo def boo jullee ba sa boo jullee ba dara desul lu may sëlmal nga sujjoot sa xabla salaam ngir ñu ne faatiha du farata ci rakka yëpp bu sa julli matee nag nga baamtuwaat julli gi ixtiyaatam ngir léemtu rek ngir topp ñu ne faatiha farata yëpp loolu ku xool téere Maalik yi da ngay ci gis lii mu wax ne teewul nag yeneen yi ñu wax naa da bàyyi rakka bi jël rakka bi wecc ko bi loolu it moom moom moom wax la juñ mën a bàyyi xel ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy bàyyi faatiha ci rakka jël jël euh, raka boobu jàpp ne dafa yàqu comme que dabaatal gi weesu na raka bi ñu toog taxaw taxawaayam loolu mooy ñi nga xam ne ñoo tabax seen wax ci ne faatiha farata la ci ci kulli rakaatin ci bu ne waaye boo gëmee ne du farata ci raka bu ne moom boo ko bàyyee mën ngaa sujjóot xabla salaam boo ko bàyyee mën ngaa sujjóot xabla salaam teew na li gën a lëng moom li gën a wér ci ma sab li nga xam ne moom moo gën a wér mooy faatiha farata la ci raka bu ne donc moo gën a wér moo waral bu ñu jàng téere yi dañuy wax ne rek ku bàyyi fatiha bu dabaatal ga weesoo rakka ba nga bàyyi fatiha rakka ba day yàqu day yàqu waaye ku jàpp ñeneen wax ji daal ne fatiha du farata ci rakka bu ne li ëpp ci julli la nekk farata kon boo boo ca bàyyee fatiha eh, ca mooy li gën a néew mën ngaa si jot xam ne salaam bi ñoo ngi lay delloo siyaare bu baax a baax mbaa yaa ngi si jàmm waaw loolu nga wax de am na moom ma boo xoolee mu xaw a mel ne lu xaw jaxasoo ci biir kii bi maanaam nga xam ne ñoo koy wëlbatiku di ko laaj quoi ñoo ko respecté wu dañ koy kekkantoo ak di ko kii xam nga nit mën ngay dem ba ko ñu wëlbatiku laaj la feneen donc mën nga koo fàtte wëlbatiku nekk si leneen maanaam yii yëpp yu koy waral rek boo gisee maanaam plateau bi nga xam ne ñi fa nekk noonu xam nga na ma yàlla baal te jéggal waaye am na ci question daal ku koy posé lu mu dee dee dee war ngaa jéem war nga xam dara tuuti war nga cee xam dara tuuti daal te bañ a mel ne man ndax fu demee ne ab oustaz ak ñeneen moom ku koy laaj moom koo xam ne da nga fa nekk ak moom ci plateau lu mu gàtt gàtt moom war naa xam tuuti moom te bañ a mel ne man mais nag bon Sénégal nag moom na ma yàlla baal te jégal waaye plateau yi moom léeg-léeg dañ ciy xaw a gis lu mel ne saaru marketing bi daal da ciy xaw a bari trop. waaw sama sëriñ si ma maa ngi lay ziare wax nga dëgg wax nga dëgg de waaye maanaam fi moom ni mbiri ni mbiri demee la rek te ñaare ba am no no noo wanee sa xam-xam dëggu ne plateau yu mel nii moom kenn du la ci éviter ndax ñoom nit ñu mel nii lañ soxla rek nga xam daanaka xeetu comédien ngay doon ku ku kuy fo rek dañuy bëgg oustaz ba am daal day bëri ay caaxaan ñoom moom loolu lañ soxla ndax euh, borom xam-xam moom am na xeetu émission yoo xam ne ku la ci éviter sax yow yaa war a lànk waaye nag boo ko wuyoo la fa nekk dong boo àggee loolu nga fay fekk te ñoom wax dëgg yàlla xam nañ ko xëy na njëriñu àdduna liñ ciy séentu wala yu ni mel daal waaye ñoom moom xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax ndax xam nañ eh, am na am na nit ñoo xam ne tey jii bu ñu leen fa évité woon dinañ leen boole ak yeneen borom xam-xam waaye duñ leen bàyyi ak ay jigéen ak ñu leen di laaj ak yu ni mel loolu moom ci nit keroon nit daal yaay fexe ba ba wekk sa bopp ba noppi boo gëmee sa bopp ba noppi daal ñu yóbbu laa gëm boo gëmee sa bopp ñu gëm la amana rasulu bi ma unsila ilayhi min rabbihi wal muminuna kullun amana yàlla bi mu koy tàgg daa da koo tàggee ci ne daa gëm boppam ba ah, yàlla dane dafa boppam yàlla wàcc moom moom na ko na nag jullit ñi jullit moom boo gëmee sa bopp rek ñu ñu gëm la booy xool it diggante firawna yàlla day wax ne fa saxafa qawmahu fa ataahum firawna daa ñëw waaye wax aw nitam ne leen yéen du ngeen ba ba gëmloo ne ñoom ñoom duñ dara moom mooy dara nag ñu topp ko rek nit daal yaay gëm sa bopp ku gëm sa bopp daal am na yooy yaakaar naa kenn du la ci kenn du la ci dugal. ah ak saa bi maa del bi la siyaar bu baax a baax a baax waa wax ji nga wax de am na solo ak jàngat bi ni nga ko jàngate nit moom boo gëmee boppam te am looy bañ te maanaam kenn ku nekk yaa war a respecté sa bopp avant ñu lay respecté mais boo xoolee Sénégal léegi kii bi. boo xoolee ñu ci bari saari émission yi ndax da ngay dégg ñu naan waaw oustaz Beuz ak dikkee te xamoo xamoo seen privé yi nekk Sénégal yëpp ay commerçant lan ay commerçant lan loolu nag ñi ci bëree bëri dañ ci dut faral di bàyyi xel moo tax saari ustaas yu mel nii ñi nga xam ne nii dañoo sant sekk ak sant yow ba mel ne man nga xam ne moom yaa ma gën a xam daal moom dañuy xaw a kii lool moom la seen yi nga xam ne moo nekk Sénégal bëgg man am na ustaas yu tontu yoo xam ni ñu respecté seen bopp lan ku ci demee ne ay Cheikh bi Biteye boo koy seetaan noonu maanaam muy laaj ak ñi mi dalal noonu ko ak ku ci demee ne ustaas boo xoolee da nga koy xam waaye am na ci yeneen yoo xam ni moom boo xoolee émission marketing la rek te seen boobu nga xam ne fa la nekk noonu seetlu lu baax a baax ay commerçant yu mag a mag lan mais nag loolu ko mu tut seetlu dëgg-dëgg wala koo xam ni xamoo nu àdduna bi doxe wala xamoo ci wàllu économie doo ko comprendre waaye ñoom boo leen xoolee maanaam laaj yooyu ñu koy laaj sax intéressé wu leen maanaam ñoom yittewu leen sax ñoom liñ bëgg rek nit ñi di leen seetaan pour publicité yeeg yeneen ñi di ñëw bu ko defee seen euh, seen poste du doon loolu lañ ciy jublu ko moo tax am na ci saar yi yi si bëree bëri daal na ma yàlla baal te jégal waaye jar nay moytu daal. dafa amoon coow man moo ma effacé ko maa ngi leen di siyaar bu baax sëñ Moustapha di siyaar sama doomu baay suñ Seexuna Gay di siyaar euh, al imam di al oustaz sëñ Ousmane dugal laaj bi nga xam ni al oustaz Moudou Fall ca TFM moom lañ doon laaj. waaw wax nga dëgg na ndax boo xoolee ni mu songe laaj bi rek day mel ni xam na laaj bi waaye maanaam daal wax dëgg yàlla comédien yooyu ñooñu xam daal ñu xawma nu ñu koy waxee ay comédien la ñu xawma nga xam ne dañuy nekk ci télé ku leen moytuwul dinañ la dugal ci erreur yooyu ndax man seetlu naa ñu bëree bëree bari ñoo xam ne dañ leen ni ay boroomi xam-xam lañ ñii daanaka ñoo leen daaneel ndax seen télé boobu am na ko fa juumoon juumte gu rëy bu dul daaw daaw jéeg ci mbirum mujje am na beneen koo xam ni dañ ko borom dañ ñu jàpp ni borom xam-xam moom it jigéen a ko évité di ko laaj jigéen góor gi nga xam ne dafa tukki soxnaam ëmb gannaawam ñu gis cëb ëmb mu daal di ni al waladu lil firaas mu waroon a wax waladu lil firaas daal di koy jaxase euh, daal di juum ca masala mu baax baax ba sëñ doomi ci euh, sant Sall sëñ Omar Sall tontu ko kon euh, doomu aadama daal dafa war a am comme ni ngeen ko waxee daal fulla daal nit moo koy may boppam ndax maanaam daa mel ni nekk ci télé mel ni da ngay def ay bës bëgg ay bës yooyu te laaju fiq moom daa yombul man bu ma newoon ci télé wóor na yàlla ku ma laaj loo xam ne sama xel mi ngi ci déng-déng dama la naa bàyyi jox ma laaj bi bu ëllëgee bu ma ñëwee bu ngeen ma éviter bu ma dee ma mën a tontu damay tontu bu ma mën a tontu du ma ci rëy du ma def dara dama rek bàyyi leen moom gëstu ji ko gëstu bi yomb na gëstu ñëw tontu lu leer a leer a leer a leer waaye yal na nu yàlla dimbali daal te jàppale nu daal ndax euh, po mi daal daa bari loolu dañuy borom xam-xam yi daa am ñoom dañ leen di pooye waaye li ko li ko sëñ Seexu naa waxee rek maa ngi koy siyaar baax di siyaar imaam Cheikh Diop maanaam nit daal sa bopp daal yow ay fonk sa bopp teg sa bopp fa nga war a teg sa bopp bu ko defee ñëpp respecté la ñoo ngi siyaar ñëpp li am na solo lool ndax fi am nañ lu ñu bari xam nañ ci loo xam xamuñu ko woon kon laaj bi sax daa mel ni moom daa mujj nekk njëriñ ndax masalam fiq mu am doole la mu am solo ci julli ñoo ngi leen di ziar ñëpp di leen balaa ko salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. moom ni ko waxee rek noonu dong la de noonu dong la daal fii nit daal yaay yokk sa bopp ba noppi yaay xam yaay kan rek bu ko defee nit ñi doon laa jox sa ca waaye boo woyofee rek dañ dañ lay dañ lay dañ lay dañ lay étiré jëriñoo la. ndax ñoom seen njariñ dong nag wax ji bari bari moom moom yàlla xam na ne seen njariñ dong lañ fi nekke jëriñ jëriñuñ kenn seen bopp dong la ñuy jëriñ jëriñuñ kenn ah sëriñ xaadim sëriñ xaadim ñoo del dellu di la siyaar bu baax a baax comme ni nga ko leerale nii waa li nga wax ni am na solo de foofu de ku ko yàgg ci ostaas boobu juumoon foofu noonu xay na boo xoolee xëy na mën na xam laaj bi sax waaye dafa mel ne ku répété wu xam nga am na nun lay laaje wala ñu bërëxal la xam nga boo demee même bu fekkee da ngay jàng am na nun lay laaje léeg-léeg wala nu ñuy jaxasee kii bi am na boo teeluwul dëgg-dëgg rek mën nga see juum te fiq moom comme noonu nga ko waxee rek surtout boo xam ni dañuy jékki-jékki rek laaj la moom salma fiq te moom hmm, jar nay teelu bu baax a baax di ndax loolu dafa yombul jékki-jékki question réponse question réponse question direct réponse yooyu moom dafa xaw a kii lool te ñoom comme noonu nga ko waxee noonu kooku noonu Serigne Mouhamadul Amin Sall moo ko doon tontu moo ko doon tontuwaat ci laaj boobu am na ñeneen ak ñeneen sax ñu jotoon a wax ndeysaan foofu nag man nag bu njëkk ba ma leen daan seetaan booba sax rajo la woon rek nga xam ne boobu moo am na oustaz bu fa nekkoon koo xam ne moom jàmbaar la woon lool te génnoon àdduna 2008 jamono yooyu maa ngi Dakar moom daana leen topp bu baax a baax muy Serigne Mouhamadou oustaz Mouhamadou serigne mohammadu amin donne nga xamne jotone na fe nek wal fajiri jotone fe nek dunya ko mom wax deug yalla am jambaron na lol waye dal ban demé bo ubbi télé dal mom affaire marketing def leen ki bo xolé dal mom doyna war dal mom doyna war trop trop trop en tout cas dal respect dal mom amuñu ko dara ci borom xam xam yi mom assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk al fiqh al malik wa adilakum ma ngi ñaan jamm dëkk sakku seen don top seen waxtaan même vidéo bi seetaan nañ ko dem si guddi waaye nag euh, commentaire yi lañ njëkkoon a gis commentaire yi sëriñ Ousmane ak ñoom seen bañ seetaan ban ban bañ seetaane bi nag macha allah tax sax franchement man niveau sëriñ Modou bi bett na man bett na ma même si na war a wax xam la te xam na question bi xam naa ne xam naa nag plateau bi liggéey di roubee si la juum ndax bu nga xool Baye Cheikh mu njëkk a tudd xabla sax xam naa moo tax moom si xelam sax mu bëgg lu neex Baye Cheikh sax wax xabla waaye nag jàpp jàppoon naa niveau bi amu ko moom niveau bi moom fekkee am na ko moom mën a répondre ay question moom mën naa toog si plateau yi waaye niveau bi moom jàpp ma woon ne am na ko sax man de ak ma bett man man de bett man xamoon dara xam li sànni raak ak ak di di kii daal pour man masala bi sax du ko xam daal macha allah kon daal na toog si plateau yi bu fekkee mën na lii moom waaye nag li ko bàyyi ceex yaakaar naa daal moo ko influencé li mu ko njëkk a tuddal xam la avant mu tontu mën naa am xamu ko mu juum wala mu bëgg lu neex bàyyi ceex rek ne bàyyi ceex tuddoon na xam la xaaral moo xam la tabax la war a wax plateau yi moom plateau yi diine plateau commercial la ak caaxaan ak fawda ak gàcceel diine bi ba mu ne tot loolu mooy seen objectif waaye li yëkkati diine bi wala alias billah